xanaa Souleymane xër si si sëñ Babacar xër si Seydina Mohamed heure bi da ay fekk Tiwaawan li mu doon doon yor ay may tànk si Tëngéej heure bi da koy doon fekk Tiwaawan ndax moom sëñ Babacar rek la bëgg Seydina Mohamed sëriñ bi ne nag ku ne na nga moo sa kër mu defee ndigal ñëw tànt fi si këram oo ay soppeem oo ay mbokkam oo ay responsable politique dëggal leen si këram soo ba tey ñoo ngi fi fi la ñuy yendu fi la ñuy añee muy màggal guddi Seydina Mohamed te képp kuy julli war nga ko màggal rawatina moom Souleymane Ndoye mi nga xamante ne mooy nekk si dëkk bi nekk député député CEDEAO président conseil départemental di dundax askan heure bi daanaka fekk mu tekk teg otoy pombiteeram otoy sobleem comme ni nga ko doon defee bu Njaasaan amee Tiwaawoon na da siy raw ndax moom bëggul lu Serigne Babacar nooyewu lu dul sëriñ Babacar bëggul lu dul Seydina Mouhamed man mi ren moom ma woon Seydina Mouhamed kon moom Seydina Seydina Mouhamed rek moo ko ñor ak Serigne moo tax mu woote bis bi tey ñu fekk sa kër nag ñun ñi nga xamante ne loolu ay mbokkam di ay responsable politique am ñu ñëw jàppale ko si guddi gi accompagner ko man heure bi Touba la ma fekk mais Souleymane su ootee. keneen ku ma soxlaa man danga may ñàkk ma àndax moom nag ñu fekk këram soo ba léegi muy màggal Seydina Muhammad di gudd yonanta bi di gudd yonanta bi benn soo ba léegi bépp jàngakat bu ne si dëkk bi rek ñëw nga fi bépp kuy tàggakatu yonanta bi soo ba tey ba léegi ñëw nga fi ndax Souleymane mbiram du yem xër na Serigne Babacar xër na Seydina Mouhamed moo woote fii si këram di màggal Seydina Mouhamed yàlla na feebar bi yàlla daxal feebar bi déwee nu dem Tiwaawan waaye yeneen ay bés yàlla na ko di làngal Serigne di Seydina Mouhamed di ko tàntal chaque jour ndax ku tàntal Seydina Mouhamed moo fay jiitu boole alalam boole ñaxam boole léppam boole otoy pomme de terre otoy sobleem mu jëm Tiwaawan kon tey ji bu ndox amee mu làngal fii këram Seydina Mouhamed lu ñu jàppoon nañ koy bàyyi ñu accompagner ko Thank you.